noonu mooy fédération bu mag bi ñoom def nañ nañ daan def daayira maam bi wolof ñëw nañ daayira turandoo sëriñ Basiiru Mbàkke yi foo xam ne turandoo nekk na fa ñoom it ñëw nañ daayira Abdulaat Mbay bàyyi ko Ndofaan ñëw nañ daayira xidmatu soxna jaara daayira sëriñ Basiiru Mbàkke bi nekk Ndakaaru ñoom it bu Ñooro ci njiital Basiiru Mbay ñoom it ñooñu ba tey dëkk yi nga xam ne ña dëkk danoo bàyyi seeni dëkk bàyyi seen lépp ñëw fii Poroxaan ànd ak sëñ bi gàmmoo fi ñooñu itam ñu ngi ciy ñi nga xam ne xàmmee nañ ne ñi ci desit ñu jéggal ñu ko kuñ ci tuddul di waa Kër Maba Awa Njaay waa laa maram sanc mo jowob waa xupaax Ndiba Njaayeen Panne Abdoulaye Diop waa dëkk bu réy daayira ay di njaay badaloo ñoom it am na ñu njebal ñoom it ñëw nañ waa caareen ñoom it ñëw nañ waa njaaj waalu ñoom it ñëw nañ waa fett ñoom it ñëw nañ waa kër aadama ñoom it ñëw nañ ñi nga xam ne ñoo doon jàng te yoroon njàng mi nga xam ne mooy ñu doon kuréel doon jàng barsan bi daayira sëriñ Cheikh Astou bokk na ci ñi doon jàng daayira Abdoulaye Ndiaye bokk na ci ñi doon jàng daayiratu xidma tut soxna jaar ñoom it ci jàngkat yi lañ bokkoon ñi nga xam ne ñoo doon jàng fii ci baas bi sëriñ Dame Dieng def na conférence def na ko nam daan na ko daan defee leeral nit ñi li waral guddi gi Abdou Dramé moom it ci la jàng ba ci ki mujj jàng léegi di Serigne Mokhtar Dieng Serigne Bassirou Gueye ñoom it ñëw nañ Njaañ Lageem ñoom it ñëw nañ ku ñuy wax Balla Mbàkke Mbuub docteur Balla Mbàkke Mbuub moom it bàyyikoo na Tuubaa ñëw fii gàmmoo si fii ci sëriñ bi hmm. rajim bismillaahi rahmaani rahim ginnaaw bu mu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant seexul xadim ak soxna jaara borom barab bu tedd bi di ñaanal sunu yaakaari tey ak ëllëg seex muhammadul basiir suñu borom ku dal aw faram ku yokk ak wéram baax a baax barkab seexul xadim ñaanal lii di nuru lu mu jëf te lépp tege ci sa kaw ndigal bala mën a xam ne jëf la Euh, yàlla na dégg alhamdulilah bi aalamina ci sa làmmiñ xolam soog caa sedd xelam soog caa dal su ko déggee na sëñ bi daan def dana mën a wax njaboot gi ne bu gannaaw subaa ñu daje Tuubaa Mbana yeesal cant googu dundal ko fas yéene bu déwénee insha allah rabbi ñu àndaat ci lu tee rëcc rëcc it yàlla na ko jéggal te nga xam ne du sunu bëgg du sunu jublu waaye sunu yitte yépp moo doon loolu digal mbakk ñu def ko na ko bëggee wala nu ko raw loolu la ñuy ñaan nga ñaaral ñu ci ñu sax ci dakk barkeb sëriñ Tuubaa mu ngi lay wax itam na njaboot gi mboolem foofu ñëpp ñëw nañ na njaat ñëw ànd ko sëriñ Modou Rokhaya waa kër maître Badji xam naa li tax nuyoo ba nga magge gi rek ak tànk yi xaw a naqari jamono bi moo tax teewul ci baas waaye ak njabootam ñëpp ñëw nañu euh, la ci des it nga xam ne mooy njabootu bokk sëriñ Modou Rokhaya gi nekk fii Poroxaan ak gi nekk Ziguinchor foofu waaye mën a nekk rek ñëw na teew ci bés bi ngir jéem a dundal ndigal loolu ànd ko sëriñ Jaam kon kàddu yi du gudd kàddu yooyu rek la ñu ngi lay ñaanal fan wu gudd ànd ak wér nga yàgguloo digal te ñu yàgg ko jëfe barkeb Seexul Xadim jërëjëf Mbàkke bismillah sëñ def baas bi xanaa lañ naan xel day fattu jóge ndakaaru moo itam ànd ak ñoom daan defal waaye ku lu mel ni tiim doo ko def bukk wax dëgg yàlla ñëw na ak pas-pas bu mat sëkk waaw Baye Mor duggan ci sëriñ sëriñ bi duggan ci moom su ma ko tudd loolu it moom dana ko tudd xam naa ne xelam génn ci waaye nag ñu jàppe ko matali doomu aadama rek waaw baax na jërëjëf. barkatu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sangu mboolem mbindeef yi alayhi salaatu wasalaam sant Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul di jaajëfal maam Ibrahima Lamp ginnaaw bu ñu nuyoo siyaare sunu kilifa gi toog di sëñ Basiru Mbàkke ñaan sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér di ko ñaanal moom itam mu yàgg ci sun kanam yàgg noo jiite ñaanal sëñ am di Modou Mbenda mi toog jataayam maam Cheikh Ibra mu yàgg te wér liñ ciy wax rek day waxi yéene xam naa lu ci wax yombut waaye yàlla na nu yàlla jubalal sunum xel ban wax leen bëgg a wax ci dara yi Cheikh dañoo am kontaante ak ngërëm ndax lu mel nii daanaa ko fekkee waaye gëj na ay <coughs> gëj na ay at ni ma ko fi waxee woon atam gàmmo bari na ñu koy def waaye gàmmo ba yoor yoor moom ah sëñ Bassirou Mbacké ci sa darajey maam sa jaglee foofu gàmmo am ci senegaal boo xooloon waxtu wi tey mbooloo ma tasaaroo nañ bu ñëpp waaye gàmmo ba yoor yoor moom fii ci Poroxaan ci maam jaara lan ko gisee kon ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di feddaliwaat kóllëre ak ndigal la nga xam ne dafa bàyyi ko woon ci Cheikh Moustapha moom sëñ Basirou ñëw ci sëñ Mouhamadou Dieng ñëw ci yow mu boole leen noonu ñu bokk ci njabootam mu njabootu sëñ Modou mu doon sunu kilifa di sunu jëwriñ te mati ko sëkk ñu doon ànd ak moom liggéey bi léeg-léeg nag dafa may fekk ma sori gëj naa koo fekkee am na ñu daan ñu ci daan ànd ci jataay bi tey neetuñ fii yàlla na li ma doon wax lépp yàgg sëñ Modou mi wax ngeen ko xanaa dañuy fàttali rek bokki taalibe yi sunu jàmbaar ji toog ci yéene ji ñu war a am ci moom te dabaguñ ko ba tey mu yéene jam amoon ci sëñ Moustapha rek moom lañu war a am ci moom pas-pas bi mu amoon ci sëñ Moustapha muy woy juram pas-pas boobu lañ war a dabu ci moom lu ci bari nag fekke woon naa ko fii ci dëkk bii masuma koo wax waaye tey danaa ko wax dëkk bii bi fi sëñ Basiru mii di ñëw fekkoon na mu metti lool lam fi jëlee defe woon na ku ko fii jële ku dul jàmbaar ndax barab bii ñu toog di gàmm fanaan nañ fee gàmm bët set ñu yendoo fee sabar ay yoon yoon yoon yoon dana ko fi dindi loolu incident la woon sëñ Moustapha dindi ko waaye taxut woon nag mu dañ ci dëkk bi dañ ko daan defee nu mu leen neexee waaye ki ñëw leeral dëkk bi ba dëkk bi niru li mu war a doon mooy jëmm ji toog ci ak njàmbaaram ci aw fitam ci jomam ci faayidaam ak ci gëm liñ ko def loo keneen ku doon rek da nga wone gannaaw ma jàpp ne ñun ñiit waruñoo yaafus nag ci gannaawam loolu kenn nettaliwuma ko dama koo fekk dama ko daan toone bàyyi bàcc léeg-léegaan ma ne ko seen sabar yi fii la ma fekkoon mu ne ma tuug noppil may may kaf ak moom di ree ndax booba ndaw laa nekk ci loxol sëñ daam sekk mi bàyyi kii waaye daana wax ne ñay wii ma gis doom ja lay xalal daal wax ne bis bu doom ja dikkee danañ xam ne woote bi am na boroom moom sëñ daam sekk daana wax loola loolu yi nag jar na kenn ku nekk di ko bàyyi xel fu poroxaan nekkoon démb ak ki ko indi fi mu tollu tey kookee kenn warta weranteeg moom ci lenn kenn warta xëccoog moom ci lenn lu mu xool lu ne loolu lañ war a xool lu mu def lu ne loolu lañ war a def ndax ba mu fiy nekk da cee wéetoon te man ko lool nag mu jafe woon lool ndax booba ndaw la te ñim nekkal daanaka ñëpp mag ko ci at bu doon keneen a mu ragal waaye ndigal lañ ko jox ba mu dikkee ndigal loolaa ko tax di mag kenn ku ci nekk am na fu mu jaar ak yow ba mu ngoon gi konteeg yow xamal nga sa bopp ne kii du sama morom kon dama ko war a topp ba dëkk bi mel nii mu mel kon buñ dee ay taalibe war a ànd ak moom ci liggéeyu soxna jaara bii moom dong lañ war a déglu lay bëgg-bëggam moo war du suñu bëgg-bëgg fam xool rek lañ war a xool ndax loolu mooy pas-pas bi te pas-pas nag su wérul ci ab jullit daraam wérut te pas-pas weesuwut jëfe ndigal bàyyi tere te loolu mooy charte bi jëkk ci yoonu murit saa su beñee ci murit ak murit desatu fa charte bi jëkk ci yoonu murit mooy jëfandigal bàyyi tere fal isnu charte fii xabuli shahni mooy laa tafalu shay bi xayri isni kon ab murit day moytoo jëf lu dul ndigal waaye fu ndigal waddee nag waratul moom boppam fenn ndigal loolu yeggut te moom mii nag ndigalam loolee mu yor day bees rek ndax kenn ku ci nekk xam nga fi dëkk bi nekkoon waaye xam nga li nekkoon ci dëkk bi itam xam nga it fi mu jële dëkk bi xam nga fi mu ko indi tey xanaa gone rek yaa dul xam nam meloon démb waaye mag ñëpp xam nañ lim daj soog a si fii tey kenn tungóomu ko mbàkke kenn tungóomu ko daa dox raam ci xaaxaam bi ba taxaw kenn jàppalewu ko dañ koo seetaan muy bët di bët di bët ba feeñ kon wallaahi jantum jolloor lay doon téen ci kaw séen ko rek ku bañ mu tiim la booy boo jóge fi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 في كل سهر وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر السفر